asalaamaaleykum ak ngeen tudd Serigne Saliou Niang responsable magasin bu daayira Moukhaddamatoul ma euh, magasin bi euh, li nga xam moom mooy seen liggéey ci gàmm gi ak lu ko wër mooy bépp bagage boo xam ne ñëw na fi ñu jël ko euh, enregistré ko xam ki ko fi indi ak ñaata la bu dee jëm magasin bi loolu mooy seen liggéey bépp bagage boo xam ñëw na ci biir jumaa ji bagage boobu ci biir magasin bi lay ñëw ñu jël ko enregistré ko bind ko bu ñu paree tamit bala balaa benn bagage a génn ci sous commission yi nga xam ne moom la magasin war a seqal li nga xam ne moom la war a joxaat bagage képp koo xam ne mu ngi lay joxaat bagage euh, responsable boobu la koy jox xam ñaata la ko jox ak lu mu ko mën a jox ci bagage lim bi bu ñëwaatee tamit ñu naka noonu ñu defee ko noonu xoolaat bagage boo xam ne xool ba xam am na lu ci manqué wala am na lu ci yàqu wala lu mu mën di doon. magasin bi it ci biir gàmm gi naka la koy dundee. Euh, lépp loo xam ne lu aju ci moo xam matériel moo xam tarmuus wala kaas wala euh, peñe peñe yi nga xam moom la ñuy def euh, xéewal yi ak ak li nga xam moom moo fi ñëw ci beñe yëpp ci magasin bi ñoom ñooy responsable bi magasin boobu nag am na koo xam ne moom lañ ko booleel beneen sous commission boo xam ne ñoom ñoo yor lépp loo xam ne lu aju ci wàllu séddale la ñoom buñ paree ñoom lañuy jëlaat kooku bu ñëwee wala koo xam ne yebal na ko fi danañ ko bindal benn kayit boo xam ne moom la indiwaat ci magasin bi ñu mën koo livrer euh, livrer loolu bu dee jëm magasin bi loolu mooy seen liggéey euh, taxawaay bi ñu ci taxaw nag lépp loo xam ne lu aju ci euh, ndax magasin bi day liggéey ak sous commission yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci biir liggéey bi moo xam waañ wa moo xam ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu li jëm ci xormay jumaa ji ak li ko wër ci lépp loo xam ne lu ñu war a jox la moo xam seeni i bulus ak lu mu mën doon rek maa ngi seeb loolu mooy seen liggéey ci gàmm bi